à tout le monde donc d'avoir euh, euh, d'avoir donc effectué le déplacement. Donc nous remercions les journalistes de leur déplacement de la ville jusqu'à ici. Donc c'est Alassane Momodou Diouf, le coordinateur du mouvement des élèves étudiants républicains du département de Podor, section Saint-Louis. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour montrer davantage donc, la forte représentation que le président de la République, son Excellence Maxel, a au niveau donc, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et particulièrement au niveau donc, des étudiants du département de Podor. Parce que comme vous l'avez, comme, comme vous, comme l'aurez constaté, aujourd'hui donc le département de Podor et tous les étudiants du pays donc, sont sortis en masse pour répondre présent à l'appel, donc à l'appel des étudiants républicains. Et c'est une activité qu'on a tenue aujourd'hui pour assister donc d'une manière symbolique les étudiants de la première année et les étudiants de la licence 3 et les étudiants naturellement qui sont en master 2 en une dotation de tickets parce que vous savez tous, à l'université Gasson Berger de Saint-Louis et naturellement dans toutes les universités, quand l'étudiant est fraîchement inscrit, donc il a un problème lié un peu donc aux conditions de vie, aux conditions de vie euh, euh, euh sociales. Donc naturellement, on s'est dit qu'on doit faire quelque chose pour assister, pour assister nos camarades qui sont là. Et le mouvement des élèves étudiants républicains, c'est un mouvement qui est là depuis 2012 euh, jusqu'à présent. Et depuis qu'on a pris donc, la coordination du mouvement, nous sommes donc dans un dans, dans, dans, dans une procédure, en tout cas donc pour essayer d'assister les étudiants et en même temps pour promouvoir donc la politique du président de la République donc au niveau des campus, en, tout cas au niveau du campus, euh, campus euh, social donc de l'université. Donc et naturellement on ne peut pas donc parler aujourd'hui sans pour autant donc parler attaquer l'actualité du pays. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous sommes, en train, nous sommes aujourd'hui en train de voir, en tout cas donc une opposition qui ne respecte pas trop qui ne respectent pas trop l'histoire du pays. Et naturellement, comme vous le savez, le Sénégal, c'est un pays de droit, c'est un pays de démocratie. Et le chef de l'État est en train, donc, bien, en tout cas, donc, dans sa mission pour véhiculer, en tout cas, donc, cette démocratie. Donc, c'est dans ce siège-là que nous, appelons, à cette opposition que je ne qualifierai même pas d'opposition, mais que je qualifierai des gens qui sont là pour semer donc, le pagaille, en tout cas, donc, pour, pour leur intérêt personnel. En tout cas, à ces gens-là qui se réclament opposition, qu'ils savent qu'au niveau donc, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, donc il n'y a qu'une seule voix, il n'y a qu'un seul leader, c'est le président de la République, c'est le président de la République, son excellence Macky Sall. Et nous appelons à cette opposition-là, donc à maintenir en tout cas donc la paix et la cohésion sociale qui sévissaient au niveau du Sénégal et qui fait en tout cas donc aujourd'hui, qui fait donc qui fait en tout cas donc la beauté du pays. Donc c'est dans ce cas-là que nous appelons en tout cas donc, à la justice à faire son travail et aux gens qui sont inculpés donc, dans les tribunaux, qu'ils puissent en tout cas donc, aller répondre tranquillement, comme tout citoyen en tout cas donc, qui a un problème avec un autre citoyen. Donc on ne peut pas terminer notre allocution sans pour autant remercier les gens avec lesquels on collabore. Donc nous allons commencer par le président de la République, le ministre Mansour Faye, le directeur du CRUS, en l'occurrence Bambaka, qui est en train donc de faire un travail exceptionnel au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et Cheikh docteur Cheikh le ministre de l'Éducation nationale, donc le leader, en tout cas donc, un leader du département de Podor. C'est dans ce cas-là que nous allons remercier Moussa Assar, remercier Abdoulaye Daoud Diallo, remercier donc le président du conseil départemental de Podor. Euh, Tourbi Alassane Momodou Diouf, coordonnateur mouvement des élèves étudiants républicains du département de Podor Tay, woote nañ suñu camarade yi si benn activité bo xamante luko la lor moy jappelé suñu ay camarade ño xamante L1 lañ nek wala L3 wala master 2 si benn cérémonie bo xamante dañ leen di doon jox ay ticket parce que xamnañ nañ ñëpp au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis tay problème bo xamante étudiant mom yi moom la ñuy jànkonteel si toll ci wër bi ak wala fuñ ñu toll ci contest moy problème donc de de bourse donc jotaguñ sen allocution et nous on on ñi wax ni donc dañ leen di jéem jappalé ci lool non maintenant bu loolu wéssé ñu ngi vraiment donc remercier ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk dañuy jàppale. si Wow, ci manifestation euh, yoy non je pense que le constat est unanime lu musul am Sénégal le wa PASTEF nekk di def temps yi et lool non comme nous ko président de la république waxé ñun dootuñ ko nangu ñun ay jeunes lañ comme ñëpp et je pense bien que Sénégal luy def charme mooy démocratie bu fi nekk donc kenn terewul kenn opposé wu mais opposition dafay am nu muy nu muy doxee et je pense que tey Sénégal en réalité balaa ngay opposé sax il faudra nga assumer say responsabilité. mais bu nekkee da ngay opposé à chaque fois ngay wax loo xamante ni léeru la à chaque fois ngay dem ci loo xamante ni loolu dara la ci je pense que loolu néewatul leadership donc képp ku koy def na jàpp ni ñun compté wuñ ko et compté wuñ ko comme leader té néwul ben affaire bo xamanteni ni tax ñu eh, loo na ben affaire bo xamanteni ñun dinañu téré nelaw donc Sénégal lu fi président de la République nek di kiy def donc je pense kenn laam lamé wu ko et puis amul kenn kuy tok di wax ni président de la République liggéeyul donc liggéey bu set wéj la nek di def même au niveau de cette université là tay bo leen xolé donc par les réalisations du directeur du CROUS en l'occurrence Bambaka donc di ngeen di gis ay changements yu bari de 2012 jusqu'à présent donc en réalité il faudra que ñun ñu xam donc Sénégal ñun ñoo ko bokk et waruñu nangu vraiment loo xamante ni musul am Sénégal ñuy nangu muy am maintenant bu loolu weesoo nag donc comme lu fi nekk di am ñuy ñuy ñuy remettre en cause justice Sénégal tey justice Sénégal dem na ba nga xamante fu toll je pense que dafa bokk ci justice yoo xamante ni dans le monde yoo xamante ñoo ëpp réputation tay justice Sénégal kenn laamel laamelwul donc transparence am et je pense bien tay buñ ñu demee def suñu suñu suñu ay yu bon def suñu ay affaire yoo xamante teguñ ko fenn et ñuy ñëwaat di loree population bi di loree jeunesse di leen wax sànni leen ay xeer def leen ay nii je pense que jeunesse boobu noonu dañ nekk di nax seen bopp fii boo fi amee problème ak citoyen je pense que da nga war a dem avec le citoyen nga dem ci tribunaux yi comme yaa ngi say ay affaire yaa ngi say ay preuve yaa ngi say document yaa ngi say quoi xamuñu lo muñti am demal genre juges ñu ngi foofu non di leen leen àtte te loolu mooy seen liggéey et je pense bien ñuy wax ne justice Sénégal baaxul ñom ñoy am ay problème dem di di porter ay plainte si ay justice tay bu leen arranger ñu ne justice bi baaxul bu leen bu leen arranger wul ñu ne baaxul bu leen arranger ñu ne justice bi baax donc actuellement kenn mënul comprendre dëkk bi nu muy doxé il faudra que qu'on revient à la raison et ñu ngi en tout cas donc inviter toute l'opposition donc de 10 pays à ce que ñi jéem a xoolaat seen pratique yi parce que suñu maam yi du lii lañ fi bàyyi woon donc ñoom Senghor ñoom Abdoulaye Wade ñoom président yoo xamante comme Abdoulaye Wade yàgg na si opposition yi je pense du pratique yi ni lañ doon def pour accéder ci réew mi donc boo buggee réew nag dafa war am noo xamante ni noonu ngay doxee en tout cas donc ñun population bu Podor ñun étudiants yoo xamante ni ñoo fi nekk à l'université Gaston Berger de Servi ñu ngi alerté bépp opposition boo xamante ni mu ngi jéem a di naka di def naka sudul noonu si dëkk bi ñi xamal ko dara du jàll et taxaw dinañ taxaw taxaw jeune dinañ leen woon ne fii dëkk bi ñun ñoo ko bokk te duñ nangu kenn du fi def loo xamante ni nag ànduñ ci voilà e gol euh, coordinateur Alsan diouf ko do tan e tengtinde yidde andinde yimbe programme président de la république wadi dum soutenir mouvement élève étudiant république non wonir do e saint louis ko wallude étudient ji e élève womi do e saint louis e probléme aji maɓe jogui e problème mo ganduɗa hoorema ko problème tikkeji e problème jomumen so pour année woni étudiant ji wonɓe licence 1 ngala bourse walla ɗumen no mbawi heɓirde tikkeji kadi e wonde mana gandanɗa hoorema étudiant ji licence 3 e wonɓe ɗo en ngala kadi wallu Il y e, e, caggal ɗum mouvement mouvement politique pour wallude politique président de la république son excellence Macky Sall. yiide ko sénégal naaɓe ko fof e ɗum noon ko ruttudemo tan teddugal par que waɗi ko kadi aussi kadi ko widde wiide tan mouvement o wonani ɗo pour euh, euh, e gandanɗa hoorema gueɗe ɓe ganda gueɗe cewɗe ko gueɗe baɗɗe fayide aussi euh, aussi kadi yidde andinde kadi sénégal ko yimɓe fof ndendi ɗum sénégal ko on est dans un état de droit no mbiyat ni maintenant yimɓe neɗɗo fof ne jogui droit wadde ɗo ko foti wadde maintenant ko yidde wiide tan alerté wadde tintinde wonɓe heeriɓe laamu ngu wiideɓe leydi ndi ko ene ndendi Eh, eɗen jiiya sahaa fof joomum en e mbaɗa ɗe manifestation mo ngala hay motif ɗum noon en jaadani heen kala kada waɗe leydi ndi ko enen ndendi kala noddaɗo baɗɗo hunde leydi ndi a noddama aɗa foti ñawdede notoy so tawi koye gongo ma gonɗa e caggal ɗum noon mi gaynata haalde taw mi yettani hono ministre mansour faye e caggal aussi kadi yettude hono directeur courus eh, ahmadou bambaka mo ganduɗa hoore ma ne waɗa gueɗe payidinɗe ɗo e université gaston saint louis e caggal mum kadi yettude hono docteur cheikh oumar an ministre de l'éducation nationale o tous les leaders du département podor eh, directeur ministre directeur cabinet abdoulaye daoudi diallo président français départemental eh, mamadou dia et aussi kadi directeur sayed euh, Aboubacar Sow aussi kadi Eden mbiya kadi l'administrateur de l'imprimerie nationale euh, elazumar Marceau, e directeur course mo jaam ñaajo woni moussa sar et fof aɓe nodda kadi e wallodirde étudient ji ligue e liggey parce o par ce que liggantoɗen ko président de la république et politique mo waɗanti sénégal o hay goto suusa jooɗade hannde waɗa critiqué bilan